nga xamante ni ñoo muy Sankara muy euh, Girif Sougou bi taxaw ak ku mel ni Sankara Mbaye tey ñoom ñoo ñëw indi trophée nan lañ ko indee nekk Amérique di ay gor nekk Amérique di ay jàmbaar nekk Amérique di ay gaynde waaye nekk Amérique boole ko jom ak fulla ak fayda xam ni ñoom fulla mooy tukki waaye euh, euh, jom mooy tukki waaye fulla mooy ñibbi bi yàlla dogalee loolu am Girif Sougou dem représenter Sénégal foofu ci Amérique kull koo yaa ngi sénégalais nekk Amérique dafa jël trophée yii nga xamante ni anamu anamu DJ Yves liiral ma bu DJ Yves nga andil ma bu DJ Yves waaw góor Sankara Mbaye jërëjëf waaw léegi nag waaw ci kàttanu yàlla da dañuy joxe trophée bi rek dem day gaaw waaw mu gaaw mu gaaw. yaay waykat bi de doomu ndeyu Boussa waykat way yabu la neexul way mu yab yëmbal de. waaw génne génne ko xam Pape way mu yab yëmbal ay way yabu ko. booy booy booy oh oh, oh. DJ voilà léegi Papa Diouf. Papa Diouf xam nga lii lan moo tax ñu def ko say rak say xarit say doomu ndey say àndandoo yar bi nga defoon ci ñoom avant ñuy dem say frère moom lañu ñu la ñëw dellu si maanaam yàlla jëla ci yemal sax xamoo ko ndax nit ku yiw nga nit ku sell nga nit ku baax nga waaye nit nga koo xamante ni sunu borom a la jiital nga xam ni nag say rak nga nekkal waaye xataloo kenn buntu xataloo kenn te jóg la tal ko du maa xëy maamam Amadou Taalay sa maam Maremaay sa maam waaye ngay sa maam sa seex na juróom-ñaari yoon Jofaani Jum Kase Taal Sare Jong sa maam ak kon tey bu ñu taxawee Papa Diouf taxaw Girif taxaw ak ki nga xamante ni mooy ah, ah DJ man sama xol day sedd guy lii barki Serigne Babacar si barki Demba Ndiaye këram laa dem mu dox ma ñeent fukk la moom mii. kon ni ñuy def mooy dañuy jël kaddu gi di Yves jox ko. doxalal rek yow. kilifa gi nga xamante ni mooy Papa juuf mu wax nan la ko gisee ak lu rafet lii nga xamante ni tey moom ak xale yi def tey loo bëgg a wax foofu Papa Diouf. waaw salaamaaleykum Mbaw. suñu mag suñu xarit ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñi fi teew ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuñu kenn la presse en ligne ndax nag c'est normal ki xewle moom ñi ñëwul sax xam naa ni ñu ngi daw di egsi barke muy monsieur Ketchup di nuyu ay mbokkam ay waajuram ndax nag euh, ginnaaw bukki mbaar waaw liggéeyu ndey barke bàyyi dafa am solo lool ci doom dëgg la kon ñu ngi remercier ay waajuram di remercier ay mbokkam mbokkam xarit yi soppe yi am di jàmm yi di remercier ñi fi teew ñëpp di wax rek ne encore dama amaat fierté. ndeysaan. ndax fierté bi mooy. Mhm. ñu ma fi fekk ñëpp. Mhm. du tey moo ñu boole. dëgg la démb moo ñu boole. te nag àdduna démb la tey ak ëllëg. Mhm. te on sait ndax ñi nga xam ne ñoo doorandoo. biñ may topp. c'était naturel. dëgg la. dañ daan xëy du ñu am sax. paas bu ñu demee sàngal waaye nag mhm. yoon mhm. waaxu suj bu jeexul mhm. yoon bu jeexul waaw waaxu yéen jeexul waaxu suj du jeex te Diop li mu def référence jaratul uti fenn wallaahi li naan from zero to hero koo xam ne xale nga amagoo mënagoo jàngoo di dem seeraas six heures du matin cinq heures hmm. di yenu ay nag hmm. di ko dagg hmm. ñu lay fay mu jigi ngay gàccu di ko saam teg ko ci table ah. di ñofe dugg ci làmb ji di dóorante ay kurpeñ ak yeneen yi nga xam ne sax doo ko wax te danga koy def waaye loolu lépp waajur moo ko waral wallaahi kon tey y a des millions de ketchup yu nekk fii si Sénégal kon vraiment bu demee ba taxawal lu mel ni moom Griff yal na ko yàlla barkeel place bi. Mhm. ndeysaan place waaw. Boucher sa place bi mhm. yal na ko yàlla barkeel. amiin yal na ci yeneen ak yeneen ak yeneen topp. amiin waaye am naa si njort. Mhm. ndax sa papa gërëm na ma dégg si samay nopp. ndeysaan sa yaay gërëm na la si samay nopp. loolu moo am sa soxna. gërëm na la si samay nopp. kon ñu ñuy say xarit. di say mag. di say am di jàmm. buñ la ñaanalee. yàlla da ci def barkeel. te nag loolu moo feeñ fépp ah. dëgg la. parce que ku ne Ketchup ne Sénégal waaw ñëpp lay bëggee dëgg la xoolal tey presse bi mhm. xoolal sa xarit yi mhm. bi ma ñëwee gis Griff mhm. Griff sama yaram dafa daw dama kontaan ak dëggu te baax yéen a bokk seen Amérique barke yonent bi moom it muy xale boo xam ne bi ñuy ànd boobu. Mhm. metti woon na trop. trop léeg-léeg damay war a dem Madison ne ko booy fone. ndeysaan boo ñëwul du ma joué. ndeysaan mu ne ma grand sonnoon naa de ma ne ko jógal. wallaay dëgg yoon ñëw. cay waaye nag ci gi may mujjee ndaxte mhm. du ma mën a tudd ay tur. Mhm. su ma tuddee ay tur rek. dinaa fàtte lu bari. muy Yves mi. waaw waaw way nga ko way wu rëy dañu dund histoire bu bu bu daw yaram. bu war waar ndeysaan. ma yàgg ko gëm na. wallaay yàgg am si moom dama ko daan wax naan ko Yves hmm. yow dëxëñul hmm. yow étoile hmm. Yves yow référence la ëllëg par force dañ lay dégg ndax responsabilité boobu ak personnalité boobu ak dignité boobu ak sérieux boobu mu ngi ci yow kon tey su ma ñëwee yàlla dogal ma fekke ko ñu war ko jox trophée mu jaar ci sama loxo waaw hasard amul. hasard amul de. kon trophée bi mhm. yàlla na ko jëli fu nekk ci àdduna je suis fier de vous. maa ngi leen di gis. Mhm. nit ku nekk ak la mu tolloon. dëgg la mais maa ngi leen di gis. yàqu leen mhm. aar vraiment kontaan naa trop. di nuyu nag ñi fi teew ñëpp. góor jigéen mag ak ndaw. trophée bi nee nañu ñaar la ndax moom la ak Fadel Dakar Buzz mi ngi nii sa ginnaaw bi sa rakk. aussi sama rakk la maa ko yar ñu bokk ginnaaw raay. mi ngi nii moom ñoo bokk ginnaaw raay li ñu naan euh, loo doonul ndongaam doo doon sëriñam moom li muy def la ko bi dëgg la dund ko mm. social bi muy def da ko dund ndax nitu banlieue la banlieue lu ñu mës a am ñun ñëpp ko bokk dëgg la lu metti waay. Mhm. metti na keneen ki ci des. Mhm. kon day Fader. Mhm. seen trophée yi yal na leen ci. yal na ngeen ko jëlee fu nekk ci àdduna. vraiment kontaan naa trop du ma monopoliser nag. micro bi. yow ah Lirou Diane maa ngi lay nuyu. waaw tey soo gisee tey trophée yi. soo gisee tey. Ah, euh, tey soo fa la tegaat bës. tey soo gisee trophée yi. association sénégalais gambienne ak diaspora bi ku grand Cheikh Diagne président association sénégalais bi na ko fekk fii sama ñoo bokk avion man ak moom président sa association gambienne yi tamit moo baax ak looy wax rek muy muy képp kuy journaliste looy wax si ab rek na doon lu rafet parce que préfet bi Abdou xam na li may wax ku ne ñëw na Amérique amul comme modèle bu mel nii parce que modèle bi kuñ ko jox rek day fekk tey muy Amérique nu mu réeree ni ko bokkoo rek si nekk benn di gërëm ñi nga xamante ne dañoo voté pour jàpp seen kaay taxaw nii kaay ñëwal nii man la Ousseyn Mbaye kaay kaay nii Wally yow laay waxal kaay fii Wally eh, kaay fii yow Wally waxuma ak yow kaay nii eh ma ñëw ma ñëw bii de ma ñëw Maria Sy Mbaye sa bii de li nga def nii Muse Wally yaay dem yaay métti métti xam nga ni lii yàlla la lii yàlla la gaa yi ko sonal ah dëkk bi ñëpp journaliste yi mu lakk na leen ah.